bokki jullit yi gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci ne ci li nga war a nekk ak lu mën a xew li nu war a nekk ak lu mën a xew mooy ragal yàlla la koy firndeel mooy jéem a teg sunu tànk fam digle ñu teg ko fa moo xam ñun rekk a fa nekk walla mbooloo lañ fa nekkal jamono ju neex ak jamono ju naqari jamono ju am ay yomb yomb nga xam ne looy bëgg man ko am ko ak jamono ju jafe ndax bokk yi ab jullit ci ay melokaanam dafa war a am aw jubb wuñ koy xàmmee aw jubb nag ci suñuy aada boo masaan gis ku watu rek nga xam ci askan wi mu bokk am na ñoo xam ne dañuy def lenn dañuy bàyyi dara ci kawar gi ci kanam mu def ab kutumbal ñu def yaar ca digg bopp ba am ñoo xam ne giri la ñuy watu giri mooy loo xam ne day wër bopp bi ku daan ñëw ci dëkk bii bu yàgg a yàgg boo ma saan gis diw ñoom da nga leen di xàmmee ndax dañ leen di wat giri loolu askanu lëm ci réew mi xàmme nañ leen ko ab jullit nag faaw dañ ko war a xàmmee ak jub wa muy yor nga xam ne koo gis xam ko soo waxee nga xam ko bu jëfee it nga ne fii de ab jullit a fi jaar donte gisuma jëmm bam fi ba mu koy def moo tax lu mel ne lii ñu bàyyi ko léegi ci fan yi muy ak jaamu yàlla bu jàllee it ni ab jullit di xame tuuti ci ne yàlla nangul na ko ko mooy lam ca doon def lépp mu gën caa sawar mu gën a neex ci bakkanam ba tax na li ñu war a nekk suñu ko tënkee mooy jaamu fi yàlla jaamu yàlla gi nag am na ca gog yàlla daal lañu ko séqal bokk na ca weer wi nu bàyyi ko fan yii waaye am na ci yooyu it ci suñuy diggante lay nekk nga xam ne yàlla lañ cay jaamu waaye nit ci nit lay jaamu yooyu nag nit ñi war nañoo kenn ku nekk war naa xam ci moroomam lu koy tegtal ne ab jullit dëggantaan laa jëflanteel moo tax suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi nuy wax ci alquran al karim naan ku xool li nekk ci diggante asamaan ak suuf xool ko xoolaat ko setantal ko sepp liwaat ko lépp am njàngat la am njàng mu leer ña cay mën a jàng nag mu leer ci seen bopp mooy ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox xel yi ñuy xalaate te la ñuy xalaat lépp tàmbalee ci yàlla yamaat ci yàlla kepp doonte yàlla amul fu muy tàmbalee ko yam waaye moom moom moo am fu muy tàmbalee moom ak fu muy yam ñu ne ko ñooña ndax mën nañ leen a xàmmee mu ne ñooy ñi nga xam ne buñ jógee ci ak jaamu yàlla ba jaamu yàlla ga mat du tax ñu bàyyi jaamu yàlla ak jaamu yàlla mën naa mat nga xam ne dañu ko sàkkal ay fan ak waxtu waaye jullit bi dëgg dëgg dëgg ki yoroom xel te xelam ma di tàmbalee ci yàlla yam ci yàlla moom bu jaamu yàlla ga matee it ak jaamu yàllaam du jeex day wéy mooy ñu alquran di wax ne alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'uda lu mu leen mën a fekk fu mu leen mën a fekk moo xam ñuy doxi seeni soxla wala ñu doxi ko ba ñëw moo xam ñu toog moo xam ñu tëdd foo leen fekk daal lu ñuy def lu nekk ña ngi cay bàyyi xel yàlla mi nga xam ne moo bind lépp te nii mënu fi indee par benn di ñu ko fi jële par benn te kenn warantiwu ko kenn ku ne xam nga ñu bari ñoo xam ne nekkoon nañ fi ak ñun te nekkatuñ fi dañ ñuy léegi fañ jëm ñooñu nag la ñuy xalaat mooy yàlla fa fa ngay digge nekk mooy sa ndigal fa la jëm yàlla nag ñu dimbale ñu bañ sa ñu bañ a bokk ci ña fay dem ci la seen xëy naan lapp saa su nekk mbooloo mi mën naa bari ñu wéttiliku di wax waxi yi nit ñi wax waaye fu ñu wéete ñoom seen xel ca loolu lay dem lapp ndax si bokk yi foo xam ne fii ña fa demagun ci ëb lim yàlla rek moo xam seen nuñ toll te ñun ñëpp xam nañu fa lañ jëm te ña demoon lañuy yàgg-yàgg kenn du fi ñëwaat loolu wër na ñëpp wër na ñëpp ne ku dem du du dikkaat kon boobu ku nekk di dox ak dikk war nay xalaat bu baax bis bu ay fanam jeexee fii ci kaw soof mooy tax bu ak jaamu yàlla jeexee mu sesaat te geneen koo xam ne nit ñi dañuy xam njariñu lool moo tax suñu boroom waxaat ne fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum kon ba fu ngeen mën a nekkati ak lu ngeen mën a nekkati dee leen ca xalaat yàlla moo xam ngeen ne ci mbooloo mi wala ngeen dem seen kër toog wala ngeen tëdd wala ngeen taxaw te daa mel ne ñetti warab yooyu yéenti warab yooyu rek la nit am fu muy dem ne ne ci mbooloo wala mu nekk moom kenn toog wala mu nekk moom kese taxaw doxante doxante loo ci biir kër gi wala boog mu tëdd fenn fu ci nekk yàlla ma nga fa dend ak moom war na koo xalaat war na koo delloo njukkal lim ko ameel ci lu néew ci lu bari lu ko suñu borom defal mooy di ko xalaat nag di ko yëg moo tax ak jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla séq ko yàlla ak jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla te di ko jaarale ci jaamu yàlla yi amul waxtu wu muy jeex saa bu jaamu yàlla gi matee jaamu yàlla googu day wéy moo tax mu ne waabud rabbaka xata yatiyaka al yaqin jaamu yàlla kañ lay jeex mooy bu ruux nit ki waddee mu tudd ab néew moo tax suñ mag bi bi nga koy leeral daf ne na nga fexe ba bu la wenn waxtu raw bu ak jaamu yàlla mate it nekkal toftal ca ay nawaafil maanaam del taran taran taran mooy duy ba mu fees mu fabaat teg ca kaw gannaaw farata ju nekk bul ne sama jaan wàcc na waaye naa gaawantu rek wéyal jaamu yàlla rek ndax kat ñi ngi jëm foo xam ne dara du fa doy moo xam muy koor wala sas bu mu sas boppam muy ay werd jàng alquran wala ne tekk di xalaat rek ci li yàlla bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon bu leen xalaat ci jëmmi suñu borom ji waaye day leen xalaat ci mbindee fa saa boo ci xoolee da nga gis lu doy sëkk loo mën a gën a dëgërale sa jaamu yàlla sa gëm yàlla ak sa sa sa nangu dogalam ak kattanam mooy fi mu waxee ne wa amril awqaata binnawafili baada alfaraidi bila taxaafuli wa hakada bilsawmi wal awraadi wa dikri walfikrati fi ltamaadi wa bitasaduqin wa jadbi almaali ila dawi alxaaji li wajhi alwaali la siyama fadilatu alayaami maa al aqaaribi wa bil azaami loolu nag lañ cay gën a dégge mooy ne ca la nga war a nekk ku fa teg tànkam te teggiwu ko dégg-dégg jamono ak rëg-rëg ji dara du la ca yëngal foofa ku fa toog da ngay mujj nekk li ñuy wax ngëneen da ngay mujj doon ëkk wolof day wax ne ëkk tiitul ngëneen ngëneen mooy ngelaw yu ndaw yi akuk dimb goo xam ne toog na fa lu yàgg a yàgg ñu dar koo tàggale ak buut ba mu toog fa moom kese mën na faa yàggaat yàgg goo xam ni gi ngelaw yu ndaw ndawaat yi di way way mënu mënulu ko dara ndax du ko faale te bañ a nekk aw xob lu ñëw nga tiit ca lu ñëw nga jàq ca lu ñëw nga tàgg ca sago ba fàtte yàlla yàlla nañu ci yàlla musal moo tax nit ni ko sëñ bi waxee waxtu wu nekk fexeel ba mu dund waxtu wu dem jeex na du ñëwaat dafa am ku woote ne daa bëgg ñu déglu ko ndax dafa am benn télévision bu ko dalal foofa njàng mu réy nga fa li yàlla bind lépp am njàngat la yàlla wax na ko ci alquran kam woowoon ne ko waxtu muy doon mu ne waxtu sàngam mu ne ko waaw koo fay demal mu ne ko parti bi laa fay demal mu ne ko ku lay fay boo noppee mu ne ko parti bi mu ne ko man mii ngay wax ma seetaan la su ma noppee ku may fay mu ne xanaa kenn mu ne ko yàlla tere yow foo mën a dem ñu di la seetaan la ngay wax ak say taxaw ak say dox ak say dikk yëpp dañ la cay fay man ma toog di seetaan mbaa kon li ñuy wax seetaan ñeetaan du ma dal foofu njàng mu réy nga yow koo fay demal mu ne parti bi ku lay fay boo noppee parti bee may fay man mii doon la seetaan ku may fay man mu ne ah xanaa kenn bokk yi nag googu jot ab julit waru koo am ci kaw suuf moo tax yi ñuy tiitale yépp ab julit li mu war a moytu rek mooy bu dee di ñëw fekk ko ci lu neexul yàlla loolu képp a mat a moytu waaye fu waay lu waay mën a nekk ak fu mën a nekk dee dana ko fa fekk yàlla na ko fekk ca lam ko war a fekk rek moo tax xew-xewub jamono day dem ba fàttelu nit ñi yàlla donte yàlla kay waru ko fàtte waaye li tax nit ki xelam wartu jóg ci suñu borom ak lu mën a xew saa su nekk nit ñi jàngaat jàng gis ko waaye dañ koy fàtte léeg-léeg ñu dégg dëkk boo xam ne sawaraa fa jaar jommal leen lakk ko wala mu lakk ci ay kër yu bari waaye li may bëgg a wax nii moom mat a bàyyi xel lool gis nga lu kër ga lakk-lakk ba jeex tàkk te nit ña ne fa nis tuuti bu dee ak ngoon la da ngay dégg jigéen ne xaaral ma ñëw taal reer walaay te moo ne sawara moo leen teg la leen daw waaye du tax lekk ak naan taxaw du tax lekk ak naan di taxaw lu dëkk ba lakk-lakk du tey ñu toggi reer bu dee ak suba du tey ñu toggi añ te sawara moo leen teg la leen tal kon dañuy jël sawara rek jëfandikoo ca lañ ca bëgg a jëfandikoo doonte lekk-lekk leneen fekk leen ci waaye du tax moom lekk taxaw tax lekk du tax naan taxaw gannaaw nag lekk ak naan du taxaw jaamu yàlla wut a taxaw di xaar ak lu ca mën a fekk nit ki bokk yi am na ñoo xam ne mujj gu rafet lañ am nit julli na ba tàyyi mel ni kuy taaye far doxe fa dem ak dalum xel nit jóg na it jàpp fa mu doon jàppe xam nañ ci ay benn benn ñu bari xam na leen jàpp ba noppi war a waajal waxtu yi far fa des am ñoo xam ne fañ doon jullee lañ jóge woon di dem li seeni kër far fa des am ñoo xam ne bañ tiime kamil alxuraan di jàng fa lañ fa dese moo ne am nañu yéeg ci kaw seen fas yéene tëggal nit ñi ak ñuy fecc ñu faatoo fa matagul yaari at gis nañ ko moo ne nit yi bëggal na aw nit ci tëgg ak fecc ba bët set mu xëy faatu yàlla noonu yàlla mu set googu mujj te kat yonent bi moo ne yuxaasabul mari ala ma maata fii kenn ku nekk bu faatoo dañuy xool lam doon mujj a def te la yàlla tàmbalee di wàññi buy ñëw yàlla nañu fekk ci la ko gënal ma fàttali ko li mata moytu ci jullit dee di ko ca fekk mooy mu ne ci lu neexul yàlla rek waaye lu mën a nekk bu dee dikkee day dee ginnaaw lekk nga naan du taxaw oto yii ñuy dugg ko dem ak dégg su ci ab xew-xew amee it du tee ña ñuy yóbbu ci oto lañ leen duggalaat kon oto moom mënut a taxaw daa war di dew bu ñu taxaw bu ñu taxawee daa beneen ba da ko war a jël daa war a jël relais bi yóbbu yóbbu ñu ca def su ko defee kon jamono jax na lool ba seytaane tàmbalee liggéey liggéey bu am solo muy fexe leen ba di lekk ka naan ndax da ngeen di dee bu ngeen ko defut dee waaye fexe leen ba jaamu yàlla moom lu leen ko fanqal yomb ndax boo ngeen ko defee da ngeen di dee di lekk kanaan ba dee ba bañ ngir di lekk kanaan ba dee nag di jaamu yàlla ba dee ko gën am na ñooñ wax nañu ne ñi seen màcc seen liggéey màcc ci loolu nee na nit ki du dee waaye mooy rey boppam ci li muy lekk ci li muy naan ak ci li muy def te baaxul ci aw yaramam bokk yi nag kooku bu ñu ko mënee bàyyi seetaan ko muy def luy rey aw yaramam dañ mën koo xool ne ci cell sàkkantu mag koo xam ne dañ ko ne jaamu yàlla moom boo koy def di dee naka ko jaral naka ko jaral nañ fàttali ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne daara yi téeméeri nit yu yées ñett dem wax ko benn borom xam-xam mu ne ko yow dañ laa war a rey mu ne ko kon xaaral ma yow ma jekkali la bala nga ma ko def ma def la ko muy téeméer bi manqué ñaar léegi dem ci keneen wax ku mu wax loolu mu rey kooka mu des téeméer bi manqué benn kam mujj a waxal ne ko da ngay tuub rek yàlla jéggal la laa taqnatu min rahmatillah yaa ibadiy alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian mu ne nuy nu muy tuube mu ne ko da ngay dem ci suuf soo xam ne jaww ja ku tiim saf na jaamu yàlla jaww ji saf jaamu yàlla nag du jaww yi kese waaye nit ña fa dëkk ñooy saf jaamu yàlla ñooy jaamu yàlla ba jaww ji saf ko ne ko foofu yàlla mën na fa rus aw nit ci ñaan soo fa demee tuub yàlla mën na la jëkkal mu ne ko yow day neex ngaa waxal ndax ma ci sump dana tax sump weex ne buy xëy rek dem jëm ci dëkk boobee ngir tuubi fa bokk yi dëkk boo xam ne nag jaww ji daa saf jaamu yàlla ku ne war naa fexe ba sa dëkk bokk ba mu xëyee bay dem ba génn dëkk bi romb na tabla bi wane ne yaa ngi génn dëkk sangam suñu boroom ñëw ak moom ak coobareem foofa la ay fanam doon yam ñaari xeeti malaayika yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam di ko jëkkante jàngale la waaye malaaka du ràññe ràññewut bay jëkkante sax ak moroom ji ndax bëgg-bëgg da cay jàngale kii ne maa moo ko yeyoo ndax ci mooy yàlla la jóge daa rey nit te tey ko kii ne moo ko yeyoo ndax kii ci lu baax la jëmoon da doon tuubi suñu borom ba muy yebal ka leen di àtte dafa digal suuf sam jëmoon mu gën a jege fa mu jóge te moo ne day soo génn dëkk bi rek mu ne kon kii nga xam ne moo ne da doon tuubi dañ ko war a àtte ci yërmande suñu borom moo ko gën a yeyoo nañ ko dugal ci yërmande suñu borom kon bu ñuy faatu yàlla nañu fekk rek ñu jëm ci yërmande suñu borom te fekk yéene woon nañ ko fi may jeexale mooy ñu xam ne koo gis mu yëngutu rek ndekete yoo ci boppam la nekk kii woote naan déglu leen ma maa ngi waxe ci télé bi waxal fa parti bi buñ ko ko laajutu nit xam na ne parti bee koy fay waaye yow mi nga xam ne seetaan nga ciy am lu ci saw yoon loolu danañ ko dégg ci waxi sëriñ bi mu waxoon fan yii am lu mu tudd ne ko ko tudd tooñ ko gis nga lam ca jàngat mooy lañ cay wax bari na lool waaye lu dul yàlla rek ci kaw suuf mbindeefum yàlla la lu dul yàlla ci kaw suuf mbindeefum yàlla ak fu mu mën a jaare su ko defee moom lam cay xool doonul jëmmi loola waaye lam ca teg moo ko taxoon di wax mooy bu leen bu leen dara tee jaamu yàlla lu riir ma bari bari lu mu raglu raglu lu mu ñàng ñàng ak lu ñu ko ñàngal ñàngal bu mu leen tee jaamu ci yàlla su leen dara daal neen fekk ci jaamu yàlla yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musin seytaan nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina